am na ci yoo xam ne nekku fi woon lu mel ni euh, Sénat euh, muy euh, organe bi supervisé observatoire national des élections yooya ak yeneen i mbir xëy na yu ñu tegoon ngir gën a ñoŋal ni ñuy amalee élection ci Sénégal loolu la ñuy waxtaanee tey di ci dalal nag ak mbégte mu rëy El Hadji Momar Samb di secretaire général RTA-S nekk itam membre ci conseil économique social et environnemental yàgg ci politique lool macha allah fekkee jamono yu jiitu. du sa na eh, yi ñu nekk tey ñu ngi am mbégte dalal la sëñ bi Samb di la gërëm aussi ci disponibilité bi ngir réew Rewmi FM dalal ak jàmm ci Demb ak Tay euh, maa ngi lay euh, euh, jaajëfal Fatou di nuyu sa directeur di nuyu say auditeur nga àndal ci liggéey bi mhm. di am mbégte dellu si waat yow ci seex waxtaan ci li xam ne soxla la wala Euh, xel la wala itte la ci réew mi. Mhm. loolu kon maa la ci gërëm di la ci sant. Mhm. jërëjëf yow itam alors ni ma ko waxee euh, tey organisation wu élection ci Sénégal la ñuy waxtaanee euh, lataa xëy na ñuy ñëw sax ci organes yi ñu fi jot a taxawal naka la organisation élection daan tëddee ci jamono yi jiitu xëy na muy bu président Senghor ak Abdou Diouf. waaw mën nañu wax ne ndek jamono yooyu élection. xawoon na doy waar ndax eh, lii am eh, li ñuy wax par exemple eh, mbañ gàcce boo xamee ne électeur bi day dem sànni carte jël carte bi ci enveloppe pour mën a sànni ci kees gi la am rek mooy nit ki amul lu muy nëbbu waaw lépp day fës mën naa wax daal euh, amuloon benn secret hmm. euh, ci élection bi loolu lu amoon solo la ci jamono yooyu hmm. boo xaymaa xew ak fi ñu toll tey ni euh, daan am aussi ñu ko daan gis mooy dañ daan gis wala di ŋàññ taxawaay bi xam ne moom la yenn kilifa yi daan am ci seen Euh, béréb yi xam nañ ñoo koy jiite moo xam chef de village la wala chef de quartier e boo xam ne day taxaw ci jàkkaarloo nit ñi di xool ñiy woote fu ñuy woote ndax amul woon bañ gàcce amul woon dara hmm. loolu amoon na ci jamono Senghor lu lu lu la boo koy xool actuellement rétrospectivement mais loolu moo daan am euh, dañ daan wax sax ne mu fekkee ne euh, demuloo wala dugaloo xob bi xam ne moom moom la euh, chef de village bi wala chef de quartier bi euh, euh, soxla pour nga dugal ko boo sàggantuwul joxe ci ndimbal yu jóge ci nguur gi hmm. bu yegsee boo sàggantuwul doo ci am mu mel ni daal waaw doo ci jot hmm. amoon na ay moyen de pression yu rëy pression d'ordre moral pression d'ordre économique ndax bu dul loolu sax di nga rus bu ne du mbirum sax lu ñuy joxe mm-hmm. di nga am kersa xëy na euh, bu kilifa toogee nga def loo xam ne du àndax loolu. Mm-hmm. kilifa bi kilif kilifteef gi nag mën na nekk kilifteefu chef de quartier wala chef de village waaye aussi mën na nekk kilifteefu euh, sëriñ bi euh, bi xam ne moom moo lay jiite mm-hmm. ci jàkk ji wala moo lay jiite ci tarafe bi nga nekk ak diine bi nga nekk yooyu yëpp daal Euh, wala kilifa gi xam ne mooy sa waajur wala sa sa kilifa ci aada yëpp daal mënoon na nekk ay moyens de pression loolu lu amoon la leneen li aussi mooy amuñu woon fichier bu boo xam ne daal rigoureusement ñëpp mën nañu wax ne fichier bi ñëpp ànd nañ ci parti yi seq béréb élection man ci jot mm. ba mën a contrôler loolu yooyu yooyu amul woon euh, dañ daan gis sax euh, di nemmeeku ñoo xam ne dañuy woote jóge fi dem feneen waat mm. ñu leen sol ci ay kaar ñuy waat kenn du mën a xam loolu boo seetloo sax moo indi encre indélébile. Mm. te fichier boo xam ne kenn moom kenn yoru ko ñi ngay ñi jongante yoruñu ko. Mm-hmm. Euh, ba mën a xam ne euh, Fatou mii ñëw di wote ñu ne ah Fatou Thiam moo war a wote ñëpp teg ci seen baaraam numéro mm-hmm. tel la mu wote loolu amul woon Hmm. boole ci nag ak yeneen i pexe yoo xam ne bu dul carte électeur bi tamit ñu ne mën nga jël kart bu la neex wala carte euh, euh, pension wala leneen pour wote ji yooyu yëpp daf fi amoon mu mel ni daal amul woon lu leer lu wér lu mën a biral ñëpp ñu bokk ci ñi joŋante bi ne mbir bi jaar la yoon hmm. ba tax na lu génn ci résultat yi day doon euh, ñoo xam ne résultat yoo xam ne dañ koy contesté kenn du ci ànd mm. wala ànd bi du du du wér wala du du bari wala du dëgër ni mu war a dëgëre yooye jamono di ay score cent pour ci élection sax <laughs> amoon na wala lu ko jegee mm-hmm. ba na daal yooyu yëpp nag amoon na fi wax dëgg yàlla mm-hmm. te boo ko seetloo mel ni euh, euh, suñu réew quand ci wàllu élection am na jéego yu bari mu def mm. code électoral bu ñuy ànd sax amul woon Ah code électoral bi moom autorité bi moo ko fiy teg rek. Mm-hmm. waaw euh, waaw de toute façon soit da ngay da ngay dem ci élection yi wala ànduloo ci nga bañ a dem ci élection yi. Mm. lépp nag xeexu opposition ak démocrate yi ne ci réew mi moo indi ba ñu ne nañ ko rafetal. Mm-hmm. nañ ko leeral nañ ko wéral ba euh, lu mën a xew tamit nit ñëpp ànd ci ne. Mm-hmm. lii am daal ay la yéwén xëy na mën na am tolof tolof ci lii wala ci lale waaye daal mën nañ nangu ne. ñin ñi seen kaddu ak seen tànneef jaar na foo xam ne kenn du ko laam-laamee ci li xam ne moo ëpp solo loolu moo indi yi yi nga wax ni organe de régulation yi loolu moo ko sabab d'abord code électoral mën nañu wax ne mu ngi mu ngi déparé ci bu ñu waxee code électoral consensuel mmh. élection yi fi jaar ci Abdou Diouf Senghor moom taxul ñuy wax parce que yu bari donte mën nga jàpp ne xëy na wax dëgg yàlla Senghor amoon na euh, majorité amoon na euh, ñu ko jàpp ci hmm. wér man sax ci marabu ya popularité amoon na ko daal waaw ko mais xel day ñaaw day teey ci jëfin yoo xamee ne hmm. euh, kenn mënul xam lan la daal ah, yooyu yëpp nag xeex opposition bi di xeex démocrate yi di xeex surtout opposition bi xam nga tàngu Senghor moom Euh, parti yi sax ñu bëri clandestinité la ñu nekkoon ñu mm-hmm. mel ni jos waa gauche bi yooyu parce nangul woon parti yu bëri xam nga mm-hmm. loolu yëpp ñetti parti la ci mujj def soixante quatorze soixante seize ñu mm-hmm. ah, ci loolu la Ablaye Wade soixante quatorze yegg si après ñeneen ba ñu yegg si nag ci jamono boo xam ne surtout jamono Abdou Diouf quatre vingt la fi yegg si euh, mbir yi tar tar boo xamee ne ubbi nañu mbir yi ba maanaam langue bi yëpp Euh, waa langue politique yëpp ko ku mu soob rek nga samp sa ndënd voilà mais tolof tolof yooyu amoon ci tàngu Senghor dindeekuwul woon donte am na lu ci doon rot ndànk-ndànk lu bari desoon na ba ñu ñëw ci code électoral bu euh, mille neuf cent quatre xam nga mhm. euh, commission bi Kéba Mbaye jiite woon ñu waxtaan ba mujj daal am nañu ak déggoo ci ne code code bi xam ne mooy code bi ñu teg mm. ñi daal ànd nañ ci moom lañ tuddee code Kéba Mbaye voilà kon gën jaa daal ànd nañ ci donte ànd bi du ci lépp la ñu d'accord mais consensus mooy loo mënul nangu tamit loo mënul bañ nga nangu ko loo xam ne ma ko bàyyi mu jàll nga jàll bu mm-hmm. ah, leneen ngay xalaat mu mel ni daal doyoon na ñit ñi ba ci loolu élection yi ca ya ca topp yëpp wax dëgg yàlla am na nu mu demee noo xamee ne xel mënoon na ci dal donte comme ni ma ko waxee sànq am na yu bari yoo xam ne nit ñi quand même ñu ko doon laam-laamee. Hmm. Ah, ah mën nañu wax daal à partir de 92 la mbir yi commencé ah, am ah, euh, luy soppeeku. Hmm. mais élection yi xam ne moom moo déterminé moo sabab mbir yi gën a wëlbatiku. moo di élection yi ñu amoon amaloon ci 1996 muy élection régionale municipale ak rurale. Hmm. li ñuy wax rek actuellement élection locale yi. voilà moo euh, en 96 moo amoon ay ay ay ay ay tolof tolof yu bëree bari <laughs> si la ñu gisoon ay ay camion euh, carte euh, kii bulletin électoraux yoo xam ne day jóge béréb dem béréb amul bulletin euh, waa opposition bi war a amul bulletin ñenn ci parti opposition bi mbir dafa jaxase woon boo xam ne organisation boobu kenn xamul lu mu niru. kenn xamul boobu fekk nañu am code consensuel bi. voilà mais terewul loolu moom élection yooyu moom mën naa wax ci élection man yi ma fekkee moo gënoon a doy waar ci élection. ndax jaxas waaw. lan moo nekkoon problème bi booba. booba li may wax rek mooy da ngay dem béréb. par exemple man centre de vote bi ma demoon di visiter euh, day dem am parti yoo xamee ne seen benn bulletin newu fa. Hmm. seen benn bulletin newu fa. bulletin yi fa ne parti pouvoir bi la ah PS ak yeneen quelques partis mais ñeneen ñi kenn gisul seen bulletin alors ngeen di génn di woote pour ñu xam xam nga bu loolu bu amee mandataires yeex yëpp dañuy jóg. ku nekk waa opposition bi ak ñeneen sax yeneen parti ku nekk da ngay jóg. Mhm. di wax année suñu bulletin année suñu bulletin vote du fi amee ñi ñi taaw xeex see xeex sax am na fa. te foofu du benn foofu rek béréb yu bari lañ ko nemmeekoon ci réew mi ba ñëpp nangu ne euh, man xaw ma duñ ko organiser euh, jamono boobu xam nga précipitation manque de préparation wala euh, lu ñu teyoon teyeef la boo xamee ne am na lu ñu naroon moo tax loolu am luñ ci mën a jàpp rek mooy. jaxasoo bi amoon ci organisation matériel élection yooyu euh, lu yéeme la woon lu yéeme la woon te mënoon andi lu ne waaw ah, moo tax bañ ci jógee heureusement jéem nañu taf tafal ba ay car jóge fële ay camion yop yëpp ay kii di wër di di mottali fii di mottali fële loolu voilà loolu loolu on l'a vécu hmm. loolu loo xam ne loolu euh, métti woon na loolu métti woon na loolu parce que euh, mënoon na andi musiba hmm. heureusement Eh, loolu mooy différencier jamono jooju ak suñu jamono yi. Hmm. mooy quand même opposition bi amoon nañu benn sens de responsabilité. Hmm. sens su dal boo xam ne. Euh, moo doon tax yu bari du du du du du du xew ci réew mi. loola xew booba bu xewoon tey kenn waxatu ko. ah non non kooku xewoon tey moom maara day taal kooku kenn waxatu ko. Hmm. moo tax euh, qualité opposition. may maanaam qualité ñi xam ne ñoo ñooy sàkku jiite réew mi mu xam ci gox yi wala ci euh, assemblée wala ci présidentielle faw ñu àndax benn culture maanaam benn jikko boo xam ne mooy màndargaal seen bëgg réew mi bëgg goo xam ne euh, am na loo xam ne duñ fa nangoo yëg agsi hmm. d'ailleurs loolu boo liiree suñu euh, suñu évolution politique suñu doxalin histoire politique dafa mel ni saa mbir xewee ba jafe-jafe am loolu moo ñu ciy génne sens de responsabilité nit ñi maanaam seen ak maandute seen ak dal ak seen ak bëgg réew mu fa mu toll ci ñoom ba du leen jaral yenn yi ba sax ñenn ñi tey boo xoolee ci biir opposition ci biir jamono yi dañu war ne bon waaw Sénégal yi nangul fitna ci lii wala ci nangul xeex ak yooyu mais loolu du du du du jikko ju bon au contraire qualité la euh, bëgg jàmm bëgg teraanga bëgg waxtaan bëgg diisoo bëgg pencoo loolu qualité la ndax réew yi xam ne ñoo ëpp doole ci euh, adduna bi lii gën a may seen ak euh, euh, moom seen bopp mënal seen bopp ak ak dal wala jàmm jafa am loolu moo koy joxe. Mm-hmm. waaw loolu moo koy joxe xam nga maa ngi fàttaliku ñuy fàttaliku jamono Al Gore ak Clinton la woon je crois. Mm-hmm. ba ñu demee élection Clinton waaw je crois. Euh, ba ñu jàppale ne Al Gore sax moo gagné mais ñu def noo xamee ne nii Clinton moom mu jël bu ci affaire yi mais Al Gore dafa bàyyi dafa nangu. Mm-hmm. Euh, euh, mënoon fekkoon na yeneen nit la. Mm-hmm. yeneen way ut. Mm-hmm. ut baatu réew la. man na demee neneen. ba leneen man fa xaw di xew ci yenn réew yu bari d'ailleurs muy Afrique muy ci yeneen continent yu mel ni Amérique latine ndax yooyu de kon loolu jikko ju baax la jikko ju rafet la euh, mooy daal dangay tollu jamono joo xam ne dangay ngay sa bopp fàtte sa jëmm fàtte sa fi nga bokk langue bi nga bokk jiital li tax nga jog di di yëngu ci wàllu politique mooy réew mi askan wi jàmmam ak dalam kon ma dellu si bon bu ñu ñëwee ci 96 boobu la xewoon. Mm-hmm. ci opposition bi nag bañ ci jógee ah teem dalal ñu def collectif. Euh, très euh, fukk ak ñetti parti la woon au départ mais dem nañ bët doon euh, dix neuf collectif boobu moom moo bind président Abdou Diouf mm-hmm. bind ko lettre xamal ko li xew ñoom niñ ko gisee mm-hmm. ah ni xamee ne bon bon yi amoon ak ah, rëq-rëq ak ah, tolof tolof yi amoon ci élection yi mm-hmm. te ñu bëri wax dëgg yàlla presse bi relais woon ko ñu bëri xam ne wax dëgg yàlla mbir yi rafetul woon ñu bind ko lettre hmm? euh, euh, quatre-vingt-dix-sept hmm. donc en dès janvier ñu bind ko lettre hmm. waa wax lettre boobu Abdou Diouf daf ci tontu moom tamit waaw weer wi ci topp rek dafa tontu daanaka madul sax weer mu tontu euh, na ne daal moom li mu gis mooy lii ñu war a def mooy parti toog waxtaan ñu bañ a beddi kenn bu ñu waxtaanee la ca waxtaanoo ñu xool lan mooy saafara li xam ne moom la ñu gis ci tolof tolof ci élection yi fi yi fi passé nan lañ koy saafara ñu jëm ci am benn déggoo bu ko defee ñu mën a seet lu ñuy def noonu la ab Abdou Diouf tontoo xam nga loolu déjà wane na ne mhm. ah opposition bi am na lu mu def loo xamee ne euh, tolluwaayam ak matam ak dalam moo tax mu def ko mhm. waaye bàyyiwul li mu moom wala li mu xalaat ne moo ko moom mhm. cle aussi du kilifa réew mi yeboote ñëpp. waaw nangu loolu. ba ne nañu lal waxtaan. mu mm. créer benn commission boo xam ne ne euh, dafa décret. créer commission cellulaire boo xam ne ñi dañuy toog waxtaan. Mm-hmm. mu ne leen nag lii ma bëgg mooy ngeen ngeen évaluer maanaam ngeen saytu xayma li fi dox yëpp ci biiru élection bi génn li ciy tolof tolof li ciy bon bon yi li xam ne moo ci euh, moom lañ ci war a jubbanti bu boobaa. Euh, ci code électoral consensuel bi xam ne moo tënk ñëpp ngeen def ay proposition mm-hmm. noonu la mbir mi amee ñu ngi ko sax professeur euh, euh, ki nu mu tuddati pardon ku ñuy wax bu Diaye te moo moo doon vice président conseil constitutionnel moo ko jiite woon. Mm-hmm. noonu lañ ci demee ba waxtaan ba mu génn waxtaan wa nag bien sûr opposition bi am na lu mu bëggoon lu mu bëggoon mooy seen yi mm-hmm. mooy benn kii nu mu tuddati. scénario euh, comme comme scénario. bu a moom boppam. waaw mu ñoom sax dañu dem ba commission ARESA indépendante. Mhm. même tout boobu sax nekkoon na objet débat. indépendant commission nationale. Euh, euh, électorale indépendante. voilà muy CENI. donc commission électorale nationale indépendante donc ñoom loolu lañu ñu bëggoon opposition bi ñu taxawal ko. Mhm. ngir may nu mu ñooñu. Euh, ñu mën a saytu organiser élection yi saytu ko ca ndortale ba ca ba ba muy jeex ba Der Thiam sax ñu ngi fàttalu ko moom moo doon coordonné collectif boobu euh, ci xam nga moom moo yoroon parti ndey dem si yàlla ji moom moo yoroon parti euh, CDP garab bi donc noonu lañ ko doxalee ba waa parti socialiste nag ñoom d'accord ñu woon ci ci loolu pour ñu def benn commission électorale nationale indépendante CENI waxtaan yi ñoom tamit Mamadou Diop ne Ndem si Diallo Dia Ahmed Mbaye Jacques Diop ñoo doon jiite euh, seen wàll. Hmm. mais amoon na waxtaan. a euh, ñu defoon ko ca bu ñuy ubbi affaire bi ñu ko defoon ci assemblée nationale. Hmm. Euh, donc 1997. noonu la lañu waxtaanee. Hmm. ba finalement ñu déggoo ci ne ginnaaw ba kii àndula ñii ànduñoo ñii ci lii muy seni kii xam ne moom mooy. atte di président de la république taxawaloon euh, commission bi wax oo ñun ñi pour ñu waxtaan mm-hmm. waxtaan wi am na lu mu jur donte déggoo ñu ci ne seen i mooy ñëw mm-hmm. moom mu proposé ñu def ONEL mm-hmm. foofu la ONEL ju euh, mën naa wax ni foofu la ONEL soxee ko d'accord maanaam euh, observatoire national mu ngoog mu ngoog observatoire national des élections nest pas donc loolu Euh, lu muy wane mooy nit ñi donte duñu bokk xalaat ci lii wala ci lële mm-hmm. mën nañu am fu ñu déggoo loolu mooy consensus maanaam mm-hmm. fu ñu yëgsi fu ñu déggoo ci loo xam ne kii mën na ko néewal kële mën na ko doyloo mm-hmm. mais ñëpp dañu ànd ne lii lañu ñu mëj a mën a am ci jamono ji loolu mooy consensus Abdou Diouf tamit bi mu proposé loolu ah ñi ñi ñi ànd ci ñi ci parce que au moins amoon na loo xam ne ne Euh, organe boobu de régulation boo xam ne dafay jéem a euh, dalal mbir yi euh, di ko seet di ko topp mën a dalal xel yi mën a delloosi nit ñi ci li xam ne moom mooy seen warugar ci réew mi hmm. ñu ne nañ tànn ñoo xamee ne nag féetew ñu fenn kenn du laam-laamee seen ak mandute ci réew mi muy ay professeur d'université hmm. ñoo xam ne xamal nañ ne daal ak wér hmm. ak jub boo xam ne ñoom yaakaar nañ ci ñoom daal am nañ ci ñoom yaakaar ne mhm. eh, dañ mbat li xam ne moom lañu doon donc ñooñu ñoo ko seex fexe ba nag eh, ñoom ñu ne leen da ngeen di saytu mbiru élection yi di ko topp ñit mhm. ñi mën ñëpp mën a sàmmanteex loi électorale bi mooy ba ñuy ubbi mbir yi pour inscription yi ba ñuy def vote bi bay programme résultat yi mhm. ba ñu yëm foofu ñoom war nañ ko topp bureau yu ne gox bu ne war nañ fa seeni nit ñuy seetlu loolu ndax ñun ñi moo xam opposition la moo xam parti au pouvoir la moo xam administration ndax ñu ngi topp mbir ci yoon niñ ko yoonu élection euh, digale mm-hmm. xam nga loolu kon mu nekk mbir boo xam ne mu mel ni arbitre bu ñëw ci terrain bi di surveiller mm-hmm. xam boole amuloon abit ñi ñi dañ tànni bal bi rek mm-hmm. <laughs> ñi ñi ñi voilà tam loolu njëkk jël ko <laughs> waaw mm-hmm. te ñi fi ëpp doole wala ëpp nit mm-hmm. bu ñuy jël bal bi duñ ko joxee kenn du gis dara mm-hmm. bu ñu paree ñu ne ñoom ñoom gagné euh, dugal nañu ñaata but kenn du ci man dara kii nag am na au moins kuy taxaw di am xam nga boo di seet ak code électoral bi ñu nañu ko tabaxaatee bu moom am am ay isoloir am ay encre indélébile lax yooyu xam loolu de gën may nit ñi ñu seen xel gën a mën a dal seen kóolute ci élection yi ni muy demee la fay génn ci résultat ñu mën ci am xel mu dal. Mhm. ñu mën koo nangu. loolu la onel indi waaye nag euh, problème bi mooy euh, euh, amul woon yenn sañ-sañ. Hmm. xëy na loolu sax mën nañ ko génne. ba tax dafa limité woon daal. dafa amoon ay limite parce que amul woon yenn pouvoir yi moom day surveiller rek. di wax di wax nañ def li nañ moytu lii. Hmm. surtout moytu pour ñu bañ a si ci loo xam ne mën na yegg. Mm. nañ yemal ci ci yi nañ ko def et cetera et cetera. te ay recommandations aussi rek la daan doon. voilà d'accord et amul woon daal wax dëgg yàlla. Mm-hmm. sañ-sañ yu bari yoo xamee ne euh, moom lañu gis tey ci euh, euh, Sénat donc man ne mën nañu wax au moins ba ñu demee ci élection législative quatre-vingt-dix-huit yi mm-hmm. mai quatre dix huit am na lu ci feeñ ci ne ay la yéwén am nay tolof tolof ba tey mm-hmm. mais élection yi jànn noo xam ne euh, nangas nañ nañ ko daal bare ñu bari wax dëgg yàlla ñuy ëpp nangu nañ ko mm-hmm. euh, loolu moo mujj euh, jàll te tamit onel li mu andi comme li ma doon wax sànq andi na ak dal ba élection yooyu daal coow wala xëccoo na mu daan amee wala fitna wala xeex xaw na am ak dal goo xam ne nangu ñëpp nangu nañ ne ah onel daal wax dëgg yàlla am na lu mu indi loo xam ne Euh, jaroon nañu teg ko hmm. waaw jaroon nañu teg ko ndax tax na ba xel yi dal ba nit ñi nangu dem ci élection yi génn ci euh, euh, ah, ci ci ci alhamdulilahi rabbil alamin hmm. donc mais gisoon nañ ba tey te opposition moom bàyyiwul woon li xam ne moo doon yéeneem ak bëgg-bëggam mooy ñu teg lu lu mel ni seni hmm. waaw ci la donc ñu gis ne daal waroon na am parce que li doon xalaat opposition bi mooy li mu xalaat ci Sénat moom la ñu xalaatoon sax ci biir Assemblée nationale yi dina ci dellu si mm-hmm. mooy structure permanente mooy euh, kuréel goo xam ne du fay parce que onel bu élection yi jógee mu jóg mm-hmm. bu élection yi jeexee mu toog ñoom mm-hmm. dañu bëggoon lu fi sax waaw lu sax dàkk loo xam ne dafay wéyil balaa élection bi ñëw mu am lu muy liggéey élections yi ñëwee mu am lu mu ci liggéey bu paree mu saytu ko am lu mu liggéey ba seet kon kuréel boobu euh, day nekk loo xam ne day sax euh, mën a def euh, topp mbir ca njalbeen ba ci njeexitalam ca du fay hmm. bu ko defee ñi fi ne ñoo fi ne am na lu ñu leen di soppee wala ñuy soppee tiers beex yooyu di renouveler mais ñooñu ñooy yóbbu wéyal liggéey bi gàddu ko mu mel ni day am continuité am mémoire mhm. bu fiy des boo xam ne ak pàttali goo xam ne du fay ci nit ñi ba ñu mën a euh, def liggéey bi di mu waree mën a topp mbir yi mhm. ñu am une personnalité juridique boo xam ne am autonomie financière parce que ñële amuñu ko woon cest à am seen budget bopp boo xam ne dañ koy bind ci mhm. ci budget national bi ci loi finance des finances bi nga xam ne lii lañ ko jagleel euh, Sénat ci lay fonctionner ci lay dox ci lay liggéey ba mën am ak dal goo xam ne ak euh, euh, euh, moom sa alal wala sa dépense boo xam ne dina ko may lii ñuy wut ci moom mooy koo kenn du ko digtal dara mm-hmm. kenn du ko jënd kenn du ko ger mm-hmm. loolu la koy may mooy seeni rek bi opposition bi bëggoon voilà exactement mm. et donc loolu mooy wane tolof tolof ak manquement ak insuffisance maanaam doyadi yi amoon ci ONEL donc euh, ba tax ne donc ñun ñëpp jàpp ne daal jot na pour ñu jàll ci leneen lu dul lu lu wuute ak onel hmm. loolu nag euh, wax dëgg yàlla më mënuloon agsi ci jamono yooyu ci jamono Abdoulaye Wade la agsi waa ci jamono Abdoulaye Wade ba bi ñu defee parce que opposition bi moo ko porté woon te moom rek xëy na moo ko mënoon doxal di xam ne moom ba mu faloo moom euh, xalaatam la gis-gisam la ci luy gën a rafetal élection ci noonu la mbir yi mu ngi vers les années deux mille deux. ci ci ci jamono jooju euh, laata ñuy dem ci élection locale yi waroon am. Euh, ci euh, ci la ci la ñu samp liggéey bi xam ne moo mënoon tax ba ñu remplacer ONEL. def ko def ko Sénat. Sénat waaw def ko Sénat xam nga li ma la doon wax sànq ci njëlbeen même turu indépendance bi nit ñi dañ ko doon laam-laamee. Mhm. ba moo indi ñu dindi indépendance def autonome. autonome waaw dañ ne woon indépendance mooy loo xam ne daal vraiment dogo day dogo totalement ak ak pouvoir bi. waaw kenn yilif ko <laughs> waaw moom boppam te yow ginnaaw ba kii moo lay jox sa xaalis booy fonctionner état bi mhm. la bàyyi ngay dem noonu. Mhm. et ginnaaw ba li ci aju aussi mooy euh, euh, jàmmi réew mi. ak sécurité population yi. wax dëgg yàlla. waaw euh, am ci droit de regard. waaw foog mu am droit de regard. donc loolu yëpp nag. Mhm. Uh-huh. assises yooyu ñu ngi amoon le vingt neuf euh, novembre deux mille quatre. Euh, euh, ba vingt sept janvier deux mille cinq waxtaan yi diggante opposition bi ak pouvoir bi. waaw jëm si taxawal Sénat bi. waaw waaw mhm. ñu taxawal Sénat bi donc noonu daal la def ba deux mille quatre affaire bi. parce que dafa am lu njëkk am avant 2002 mooy dañ ñun dañuy xool dañuy taxawal benn Sénat boo xamee ne. Mhm. Euh, président bi day joxe ay nitam. Euh, opposition bi euh, tamit indi ay nitam joxe ñetti nit. Hmm. président bi moom joxe juróom juróom juróom benn nit. Hmm. ñoom daal noonu lañu ko doxale woon. Hmm. assemblée national joxe. donc ñu ne daal loolu loolu du du autonomie parce que loolu day mel ni pouvoir bi mooy dellu rek. ut ay nitam donte xalaat na ne ay nit yu maandu la war a tànn ku ci ne mais du tere toujours dañuy njort ne euh, pouvoir bi nguur gi mooy bëgg a mm-hmm. euh, samp ay nitam ngir ñu defal ko li mu bëgg ci élection yi mm-hmm. loolu moo tax loolu mujjul jàll sax ndax euh, opposition bi dañ ko dañ ko xeex ne loolu daal ñoom mënuñu ko nangu ndax loolu dafay dafay dafay xajamal mbir wi te du àndax li xam ne moom moom la ñu bëggoon mm-hmm. moo tax euh, c'est en 2004 waaw que li nga ko waxee léegi que ñu mbir mi nag sulleeku. Mhm. gën a fës ba bii opposition bi euh, daje ak Abdoulaye Wade euh, ci benn audience rek mbir mi dikkaat ñu waxtaanaat ci mbir mi ba finalement Abdoulaye Wade nangu mhm. ne nañu samp benn kuréel boo xam ne. mooy waxtaan ci loolu ngir ñu mën a taxawal euh, donc euh, euh, nu mu tuddati Sénat boobu xam ne moom la ñu ñu bëgg. donc ci comme ni nga ko novembre la ñu commencé waxtaan yi. Mm-hmm. deux quatre boobu. dénk dénk njiitu waxtaan yi professeur bi xam ne mooy professeur de droit université ku ñuy wax professeur Babacar Gueye xam ngeen ko. Mm-hmm. àndax parti yëpp waaw ñu ay juróom fukki parti ak lu topp. Mhm. ñu toog waxtaan. ba ñu waxtaanee nag ci lañu ñu euh, jël ay seen li ñu sotti ci waxtaan woowu. Mhm. li ñu tënk li fa jóge ci waxtaan woowu ci lañ jël jébbal ko ablay Wade ah boobu nag euh, ci la nag euh, ablay Wade jël dogal jël dogal ne léegi daal d'accord na nañ samp commission ni ñu ko waxee électorat national autonome parce que même dañu doon wax sax ne seen yi seen yi am daanaka euh, li ko taxoon a jóg ci biir Afrique. Mhm. mooy jamono joo xamee ne vers les années quatre-vingt-dix dafa amoon ay problème yu bari ci ci réew yu bari ci Afrique. xam nga jamono yu quatre-vingt-dix yooyu su ñu wax ay conférence de Bâle su la ñuy wax ay conférence nationale dans les pays parce que ñu doon démocratie amul parce que na daan dox rek mooy parti boo xam ne unique lu ko neex mu def ñu def ñu defee conférence yooyu pour am démocratie si la ñuy doxal seen seen yooyu seen yooyu sax parti ay parti dañu daan bokk ah surtout xëccoo yi aussi da daan am bu méttee métti mais terewul daal li am solo ñu dëkkee ci li xam ne mooy suñu suñu commission national boobu donc dañu wax ne daal loolu lu baax la ndax dina mën a saytu élection yi but ba but waaw te it fichier électoral bi ñu dañ koy dañ koy niñ koy waxee dañ koy faase tabaxaat bu bees refonte totale du fichier. Mm-hmm. màbbal bi fi ne woon tabax bu bees. voilà. Mm. <laughs> ok waaw tabax euh, ñu ne aussi dañuy introduire dañuy dugal ci mbir mi numérique mooy affaire informatique yi au lieu mu nekk une fiche mécanique bu ñuy bindaa loxo. wala ko mais ñu def ko euh, numérique boo xamee ne. Mm-hmm. buñ ko dugalee ci machine yi buñ ko dugalee ci kii bi kenn du ko euh, faase benn ñaar ñëpp mën nañ ci dem pour xool ko. ba actuellement sax parti wala indi kii bi aujourd'hui électeurs yi ku mu neex nga seet ndax sa inscription am na fooy dugal rek ci ministère de l'intérieur fooy dugal mbir mi DGE dugal rek gis sa bopp ne inscription nangam nangam mm. voilà donc loolu mais malgré loolu ba tey dañuy dégg des fois opposition bi di ŋàññi fichier bi. Euh, loolu kañ moom a euh, naa wax ne euh, échéance bu jot. Mm-hmm. ñu ŋàññi fichier bi. waaw kon dafa mel ni lañ doon xeex ba taxawal Sénat jugu fi. mu mel ni waaw dafa mel ni am na lu fi jóg Mm. wax dëgg yàlla. Mm. ah mais am na yu des ba léegi. d'accord maanaam am na yu des mooy euh, boo seetloo li ma la waxoon ci njëlbeen nit ñi tant que am na mbir yi nu muy demee seen xel du dal te it ma fàttali <laughs> même sax même même sax boo xamee ne yow gañ nañ la doon nangu na gañ nañ la yow xam nga loolu même fii sax boo gisee làmb ji mbir nañ mbir nañ ko daan ba mu tax a suuf mais day jóg ne daaruñu ma. Eh, ba fàttali rek Amérique bi xam ne moom la ñuy wax ne mooy champion ci démocratie xoolal li élection yi mujj eh, Trump dafa taxaw dee na kenn ka ñëw ko ba mu jaral ko sax mu wàccee ay nit ci Capitole bi. Mm-hmm. ba ah guerre civile mënoon na fa am. Mm-hmm. na ñu ca ñu dee sax loolu moo lay wan ne gis nga élection li fex ñin ñi yegg si ñu ci taxawaay boo xam ne dañu nangu ne man nga gañe man nga gañe li fi agsi ci loolu comme ni ngay wax làmb ji. man nga. mën nga daanu mën nga daan sport la waaw. li feex ñu ni yegsiwuñ boobu xalaat. Mm-hmm. bu nekk conviction mu nekk ngëm. Mm-hmm. du ñu jóge ci contestation. Mm-hmm. man gisuma lenn lu ñu mën a taxawal. na lu ñu mën a taxawal. te ci compétition lu andiwul nit ne man nanguwuma gayuñu ma. xoolal rek ku ko xoola dans tous les domaines sport ak lépp noonu lay demee mais bu amee fair play bi bu sport fair play bi. Mhm. donc xalaat bi culture bi bu yegsee ak jikko ji bu yegsee ci ne mën nañ ma daan comme ni ma mëne daan sport la rek kon élection làmb la rek mën nga daanu comme nañ nga daan te boo seetloo suñu histoire politique dëgg-dëgg wax dëgg yàlla. nga dem ba PS ni mu meloon ci réew mi deux mille. Mhm. ñu mu daanu. xam nga nit ñi dañuy toujours di wax waaw xaalis bi ñu am mbooloo bi ñu am mais ñen ñi seen xol. Mhm. ak seen xel bu jógee ci ñii leen di jiite rek dem ci ñeneen faw lool day am mhm. alternance te loolu moo am solo. mooy expression volonté ñin ñi. moo xam volonté bi baax na moo xam daan baaxul peu importe. peu importe <laughs> nit ki loolu mën a ko jëlee ci moom. Mhm. donc eh, eh, li fex loolu la gëm yàlla daal comme ni mën mën naa ko firee noonu rek pour pour mu pour mu mhm. loolu amul ci nit ñi mhm. duñu duñ ci jógee mais nag ba léegi xel mu dal may am ànd ak dal ànd ak wala xel mu teey xel mu daladi day indi toujours yu mel noonu fu lu nekk mën nga ci gis leneen. parce que boo xoolee sax par exemple euh, ñun ñun lu ñuy wax mooy commission autonome mais ki koy nommé c'est le président mais mm-hmm. fekkee ne même da nga ne kii ku mandu la mais président moo ko nommé. moo ko nommé rek baaxul. te moo ko joxe indemnité. moo ko mm-hmm. joxe kii mais saxel man na tey. Mm-hmm. bu fekkee ne loolu rek ngay jàpp. sa xel mën na tey. looloo ñu dal ci conseil constitutionnel bi. ci lépp nag. ci lépp lépp amul fu amul fu mu moyee. or euh, boo seetloo même yow ki lay liggéeyloo. daf lay liggéeyloo mais du la wax ne yaay def lii doo def lii mm-hmm. mënul nopp tegg sa nopp ne doo doo doo wax lii wala doo invité kii wala mm-hmm. doo wax mu mat sàmm et cetera mm-hmm. donc loolu yëpp nag culture la boo xam ne euh, des na des na bu baax am nañ ay jéego mais des na bu baax waaw loolu nag boo xoolee par exemple li ñu mujjee am ñu ne deux mille avant deux mille dix neuf def nañu audit fichier électoral bi opposition bi ko moo ko laajoon mais audit yooyu ñu koy def duñu waa réew mi waa bitim réew la surtout dañuy def sa en général mu nekk Afrique ñi leen di financer sax du nguur gi en général opposition bi day wax ne moom bu soñoon voilà en général ay ay ak hmm. ñeneen Union européenne ñooy dugal seen xaalis et cetera mais bu ñu defee audit ba pare ba def conclusion bi te audit bi duñ koy def ñëpp koy topp muy opposition muy pouvoir mais gis nga li mujj bu conclusion yi génnee ñu ne ànd ñu ci léegi nag ban pexe moo am ban amul pexe. doy na waar. noonu non amul pexe gis nga li mu la wax. Mhm. seetlu ko rek ñu def audit bon ñu ne ko lii conclusion yi ñu jàpp. fichier bi kay moo ñu yóbbu woon de euh, élection yi ñu mujjee fichier bi xam ne moom moo. gagné ñu réclamé waat fi audit te ba léegi mel na ni. Euh, waaw satisfaction amagu ci ba léegi xam nga loolu mu ngi mel ni xam nga loolu mm. kenn mënu ko lijjanti. maanaam ñun dañu mel ni rek dañuy def tourner en rond rek. voilà lu ñu jógee delluwaat ci. te boo te boo amul avancement malgré <laughs> euh, yi ñu fi teg alors mm. alors que bu ñu tegee mbiri rek ci ak dal. Mm-hmm. par loo moom mooy mooy day fatt xol day fatt xam xel par loo mm-hmm. ndax fu mën a doon moo xam ci opposition moo xam par parloo moom baaxul parce que yow sa bopp. doo gis lu dul sa intérêt bopp sa intérêt parti sa intérêt langue dangay ngay da ngay tëx da gumba ci lépp loo xam ne beneen la jógee lu àndul ak yow li nga bëgg te langue moom lu àndul ak moom moo daan doo ci doo ci doo ci ànd sa xel da ciy tee te boo seetloo li fi jëlee euh, Abdou Diouf jamono PS deux ci fichier boobu moo andi waat malgré ñu def refonte. Mhm. mais Wade malgré refonte boobu fichier boobu dem moo ko yóbbu kii ñëw ñu ne dañuy dañ koy auditer nag auditer waat ko mais ma la cent fois bu ñuy auditer mbir mi du du du am ñoo xamee ne mhm. seen xel fa mu toll ak seen euh, yëg-yëg ci wàllu démocratie ak seen jikko day feeñ ci loolu. wala rek élection locales yi ni mu demee am na lu mu firndeel loo xam ne ñëpp tey war nañu wàkkirlu dogu ci ne mbir mi du mbiru guichet bi mbir mi mooy ñi ñi ñooy tànn te fii ni muy demee bu jëkkoon am ay rajo walla télévision yoo xam ne euh, lu bari euh, da daan am te kenn du ko yëg mm-hmm. mais bi rajo télévision yi bare ci réew mi organes yi di dem ci élection yi di seet ni muy doxee bureau de vote bu ne bu génnee ñu ñoom ñu wax ko ci rajo bi yaa ngi dégg. Mm-hmm. Euh, di ko taf parce que bu ñu paree ñi ko séq ñëpp ci bureau de vote bi ñëpp ay signé procès verbal bi dañuy dindi kees gi këpp ko ubbi dialogue yi ku nekk ñu ngi wax la nga am ñu bind ñëpp signé di taf waa foofu noo fay sàccee. Mm-hmm. fu ñu toll nii wax dëgg yàlla mais nga xool leneen nga xool waxuma alternance yi am rek mais xool élection locale yi ñu génn mhm. bu ñuy wax nguur gi wala Macky Sall ak yooyu mais ku mel ni Aliou dañ ko gañe fële ci Géejawaay mhm. mais lan la wàññi ay xob dara gañe ko mhm. mu nangu Ziguinchor noonu mais Médina noonu Dieuppeul noonu mais foo dem ci réew mi moo tax man damay dama quelque fois bu ma déggee yenn wax yi dama man eh, loo leen mën a tontu am tontu amul. tontu amul ndaxte bu bu fekkee ne képp koo xam ne yaa ngi ci élection yi xaw ma ndax yow mos nga dem ci mm-hmm. képp kuy suivre bureau par mm-hmm. am fa sa représentant opposition bi toog pouvoir bi toog ku ne yor sa fichier électoral. Mm-hmm. te loolu sa fichier électoral boo xam ne ñi ñiy wote lim bi ñu ngi ci. effectivement ku ñëw. Ah, ah, Ndogoy Diop mu ne wa maa ngi nii. Mm. ñëpp xool ñëpp xool. ñu ne gis ku ne gis ko. effectivement. mu dugg ci mbéngàcc bi génn sànni ci xob bi kenn ñëpp di ko gis. Mm-hmm. ñu def noonu Lamine Ndiaye ay ñëpp woote ba pare ñu wàññi ñëpp toog après ngeen signé mais man dama comprendre euh, nit ñi bon soxlawul sax seet di ko jéem a réfléchir. Mm-hmm. moom mel noonu mais nag li muy indi rek mooy. bu teguwul ci jàmm ak jàmm sant ak waxtaan. leneen lay niru daal. te avancé bi mooy aussi presse bi. élection 2017 je me rappelle euh, euh, fii point E man fekkee naa dépouillement. Euh, mais yu bari ñu dépouillé devant la presse ñëpp tëju ci biir ak mandataires yi. ñu dépouillé <laughs> génnee donc côté boobu moom avancé am na mais tey bu ñuy wax ay lajj ak ay manquement fan lañ ko mën a xool ci ci ni élection di doxee ci réew mi tey. man daal li ma gis mooy il ma mën a am manquement. ak lajj mooy une organisation matérielle boo xam ne yembul. mooy lan. jumtukaay. jël bulletin de vote ba sort que benn parti wala benn candidat. Mm. du am lu mu wax ne man kat ka ma toogal Mbàkke téléphoné na ma bulletin dafa manqué waaye loolu xam nga li tax euh, Sénat am njariñ am nga Sénat moom mooy validé ci bureau de vote bu ne moom mooy def cachet est-ce que bu baax li mbir yi dootul entre rek ñi koy jàngalteel déedéet dafa arbitre bu toog qui a des observateurs sur tous les bureaux de vote dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national waw Sénat day dafa am ndaw la daawul am commencé woon na sax ci onel mais dafa gën a biir encore ci ki xam ne mooy Sénat ki xam ne dafa am budget bu ñu ko consacré am ay moyens am ndawam te lépp ñu taabal tabax ko ci ña ñañuy jël nekk ñu maandu ñoo xam ne bokkuñu fenn ñu ñëw seet def seen validé te nga ci processus bi yëpp étage boo jëm seenaa nga fa ba ñu def inscription commission inscription bu ne seenaa nga fa <laughs> moom mooy biral mbir yi donc euh, li xam ne euh, ba ba ñuy dem di dépouiller procès-verbaux yëpp benn par benn Sénat dafay signé euh, xoolal xoolal loolu rek ah, loolu bu ko defee nag euh, ñu ne euh, loolu moom lii am solo ñu war ko jàpp mooy wax dëgg yàlla man gisuma porox ndollo donc ya na organisation matérielle bi bu jaaree yoon année électorale bi boo jotee ñu ubbi inscription yi pour ñi xamee ne amuñu woon âge bi at bi ñu am man ko man mën a bindu ñi xam ne dañu bëgg a soppi seen dëkkuwaay mën a soppi parce que loolu liberté la ak droit la électeur bu ne électeur bu ne mu am loolu mais bu fekkee ne loolu am na ñu li xam ne mooy ku soxla sa carte dem jëli ko loolu Sénat muy ci aussi yow xam nga man xam naa Sénégalais bu maandu ci réew yi xam nga ne Sénégal yi léeg-léeg dafa am problème bu ñu leen ne waxtu sàngal dem leen jëli seen carte wala waxtu sàngal dem leen inscrire may nañ leen diir bii lay am toujours am na ñoo xam ne dañuy tardé dem am na ñoo xam ne sax dañuy yor seen carte électeur du ñu wote loolu yëpp mu ngi fi mbir mi daal man fi ma ko teg mooy ñun euh, ñi bu ñu àndee ak dal ak ngandute lu bari man na xew ci Euh, réew mi loo xam ne dina man dina indi ak dal ak ci euh, ñit euh, ñi mën a def élection def ko ci jàmm ñi gañe gañe ñi xam ne ñoom lañu ñu gañe félicité ñi gañe ñu jàll ci leneen waaye li feex jiitaluñu loolu ci suñu xalaat jiitaluñu ne lii ëpp solo du suñu bopp du suñu jëmm du suñu làng du par parloo mais li ëpp solo mooy réew mi xam ne moom la ñu wax ne moo tax ñuy yëngu. Hmm. waaw waay ku ku réew ngay yëngu kañ. Eh, dina am jamono boo xam ne àqu réew mi da ko koy delloo. Hmm. da koy delloo mooy da yow da nangu eh, dellu ginnaaw bàyyi réew mi nag. ne ci ci jàmm. Hmm. mais mënoo ko xañ jàmm bëgg ko dëkkal ci fitna di woo tax ñi ñi pour ñu rayante loolu moom <laughs> musiba naaru lay kenn mënu ko dégg. donc ñun fi ñu toll Sénégal wax dëgg yàlla am nañu maanaam ay jéego yu baax yoo xam ne def nañ xam nga nag àdduna nit moom matul ci àdduna mënoon ci ne lépp sotti lu buur moom mhm. amul ci àdduna lu lu ëpp nit moom amul ci àdduna nit nit rek la mën a doon foog mu am ay doyadi ay tolof tolof waaye xel yi bu ñu yeggee ci ne li ñu bokk ñun ñëpp ko moom mhm. te dañ ko war a nit ñi ko bàyyilee suñu maam yi ak suñu bàyyi ba mu nekk loo xam ne euh, lii ñi ñuy wër ci àdduna bi muy jàmm ak dal ñii réew ñuy wër amuñu ko te ñu ngi ci firnde yoo xam ne taluñu leneen lulul fay loola yàlla musul ñu ci boobu ba léegi loolu buñ ko sàmmul euh, bàyyi ko suñu njaboot ji ñëw euh, tette leen yee leen ci boobu xalaat ah boobu jikko defuñu suñu warugar. Mhm. defuñu suñu warugar. Mhm. man nag xaw ma lu jar. Mhm. taalam réew. ba noppi di ut ne da nga ko bëgg a wala da nga ut da nga ko bëgg a defar wala da nga ko bëgg a baaxal. man euh, daal man mënuma ci ànd te fu ma ko mën a waxee dinaa ko wax. Mhm. seen émission Demb ak Tay ngeen di teewlu ci Rewmi FM ñuy dalal El Hadji Samb secrétaire général bu RTAS bokk itam ci conseil économique social et environnemental ñuy waxtaanee mbirum élection organisation yi ni mu tëddee euh, ci jamonoy président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba tey euh, tey nag euh, sëñ bi Samb ñu yegg si ci étape li ñu naan parrainage. Euh, parrainage boobu aussi jur beneen coow ci biir processus électoral bi da nga jàpp ne avancement la wala dañ cee xaw a dellu ginnaaw comme ni ko opposition bi jàppee. xam nga boo jàppee ne parrainage li muy wund. Hmm. nga jàpp ne euh, histoire du parrainage ci réew mi. Hmm. am na fi depuis euh, ñu commencé élection ba mu am indépendant. Hmm. ñoom dañ leen beroon daanaka Euh, di def xaajax seen ne ñoom puisque ay nit rek kese lañu ay indépendant lañu foog bu ñu bëggee bokk ci élection yi mu am fu ñu leen jaarale luy wane ne ñoom am nañu taxawaay ci réew mi noo xam ne war nañ la mën a permettre ñu bokk ci élection yi waaye parti ñoom kenn booleel lañ ci woon xam nga muy doon loo xam ne aussi lu xaw a doy waar ñun sax ci assise national yi dañu waxoon ne indépendant bi xam dañ ko yemale woon rek ci présidentielle ñu ne dañ ko war a buural ba élection yëpp indépendant bu bëgg mën a bokk bu ko defee nag léegi bu ñu ñëwee ba ci réew moo xam ne ñu ngi ci trois cent partis wala lu ko ëpp mhm. nan la ñuy def ba suñu élection yi mën a euh, rafet sell jaar yoon ba ñëpp mën ci si gis seen bopp est-ce que da ngay bàyyi parce que parti léegi li li li mu li wane mooy même partie bi sax mën na bañ am taxawaay ci réew mi noo xamee ne nit ki ci boppam individu bi ci boppam indépendant bi am na ko. kon boo boo ubbilee mbir mi ñëpp nooy segge ba li xam ne moom la ñuy ragal mooy ku nekk rek fu waay jóg rek waxuma la créer sa parti waaye bokk ci élection yi ñëw ne dangay bokk wala danga nga bëgg a jiite réew mi nu ñuy def ba segg mbir yi ba mu yem am nga am na ci yeneen réew. Mm-hmm. am na Mali am na feneen boo demee Mali sax moom ci euh, ñi nga xam ne mooy élu yi lañ ko lañ ko lañ ko teg boo demee France aussi ñi am ndomb tàng élu yi lañ lañ ko teg mais fii li ci bees mooy parrainage bi dañ ko def ci parrainage populaire parce que loolu boo fexee ne ci élu yi rek nga ko jàpp ñi amul élu ils sont éliminés de xam ama li mu bëgg wax donte am nañ taxawaay ci réew mi boo xam ne ak ak euh, boo xam ne mën nañu gëm ne ñu bari ci réew mi bëgg nañu ñu bokk ci élection yi. Mhm. ah loolu bu boobaa mbir mi mooy waxuma la un pour cent de waaye ah, du jot sax un pour cent ñu ne la yéen ñëpp da ngeen di sàkku ji ñoo xam ne ci réew mi moo xam ku am ndombu tànk ku amul ndombu tànk électeurs yi daal képp kuy électeur man la signal ne bëgg naa nga bokk ci élection yi. Mhm. loolu xel mën na ko nangu. xel mën na ko nangu ci ne euh, filtre la pour rek gën a euh, baaxal gën a rafetal gën a yaxanal tamit euh, élection bi pour mu jaar yoon parce que sëm mu amee d'abord pour nit ñi tànn day day metti ñaareel bi diir bi muy laaj pour pour ñëpp woote ci bés bi du mën ne parce que defoon nañ fi waa société civile sax ñoo ko defoon mm-hmm. benn espèce u nañ koy wax ci expé expérience mm-hmm. une sorte d'expérimentation mm-hmm. boo xam ne lim bi dafa jéggi woon dayoo mais bañ ko defee liñ ci génn mooy lii buñ ko continuer élection yi mën na dem une semaine ñuy wote rek. législative yi 47 liste lañ amoon. 2017 voilà voilà donc loolu yee ñi ñi ci ne nañ defe na neen et donc loolu moo indi ñu ne parrainage bi nañ ko yaatal ñëpp bokk ci boo dootuñu ko rek yemale ci indépendant yi xeejeex seen bi amoon euh, ñu ne buñ ko defati képp ko xam ne bëgg yaa ngi sàkku jiite ci réew mi ñëpp nañu nangu ne euh, booy dem il faut nga am lim boo xam ne ci électeurs yi ñooy wane seen bëgg-bëgg na yow bëgg nañu nga bokk ci mu mel ni yow am nga ci réew mi ñu soxla nga bokk ci élection yi bu ko defee bu ci ñëpp àndee te eh, am na waxtaan yoo xam ne sax ak opposition bi àndoon nañ ci principe bi de lu wér. Mhm. parce que commission dialogue yi fi ne dialogue politique commission yi fi ne yow am na waxtaan ci defoon yoo xam ne ne loolu jéedoon na fa ci lu wér. Mhm. waaye li am problème mooy léegi li ma doon wax sànq. Mhm. bu fekkee ne yow danga dem ci parrainage bi amuloo lim bi xam ne moom la ñu laaj ñu ne la yow doo bokk demal nga utiwaat seetu beneen yoon nga ne nag foog nga bokk. Mhm. yow dañ la dañ la xeeb waaye dañ la complot voilà complot sax moom moo xew <laughs> ci jamono yi ci Sénégal. Mhm. waaw ku ku ku ku ku sa jabar sax porte plainte yóbbu la tribunal ñu ne complot état bi la waaw euh, waaw ku sa bopp di métti sax léegi sax ñu ne. waaw euh, kii euh, njiitu réew mi moo moo moo moo ko moo sooke mhm. donc loolu moo am ci réew mi mooy li ma la doon a sànq mbër mi day dem ñu daan ko mu warul daanu waaw waaw warul daanu kon euh, am na lu ci xaw daal dañ ko complot ci biir mhm. te li nga war a laaj mooy waaw nan la ñenn ñi mën a admet ñu bàyyi leen jàll ñenn ñi jàlluñu xanaa kon complot bi ñoom ñëpp ñoo ko seq ñi jàll ñëpp a ah, ñu déggoo seen biir ne dañ jàll baari kële te boo seetloo ñi ñuy wax ne dañ leen complot mais eh, daanaka ñi xam ne ñoo jàll Euh, ñoom buy ragal di am ci élection bu dee pouvoir bi dafa am ñu mu ragal mhm. ñooñ la war a ragal ñooñ la war a teq seen tànk ba duñu mën a yegg si ci làng gi waaye loolu amul mhm. muy élection présidentielle yi weesu ku mel ni Idrissa Seck bu fekkoon ne euh, nguur gi def ne euh, ñu làng gi ñu bokk Macky Sall dañ ne ah Idrissa Seck daal il est dangereux mhm. nañ jaar ci parrainage bi pour mu bañ a yegg ci ci géew bi mais kon moom la ñuy moom la ñuy jëkk a texatal. waaye gars yi nag fi ñu gis problème mooy ci contrôle parrainage ba. très bien ñu ñëw ci loolu nag. Mhm. xam nga contrôle parrainage bi man xaw ma loo ci dégg mais man li ma gis mooy. Mhm. Euh, xam nga li amoon présidentiel. Mhm. dañ ne contrôle bi conseil constitutionnel moom mooy topp topp affaire présidentielle. Euh, kii jëkk ñëw ñu xëccoo peut am na xëccoo jëkk a ñëw ba mu am fa jàppante dégg na. cette fois-ci def nañ ba loolu. dañ ko dañ ko éliminer lu tax ministère de l'intérieur dafa oo ñëpp ñu toog ñu proposé te loolu Sénat moo ko proposé de Sénat bi ñuy wax moom moo ko proposé nañ nañ def kii nañ nañ nañ nañ ko def yi ku nekk ak gisam euh, nañ waaw nañ def kii euh, ñu ngi koy wax te du vote dañu dañ ko tirage tirage voilà mm-hmm. nañ def tirage <laughs> boo xam ne ne euh, jukki ci biir mbuus mi mm-hmm. kan mooy jiite kenn mooy jëkk dem un noonu lañ ko defee mm-hmm. ba benn bokk yaakaar ñun bi ñu bokk vingt deuxième la woon mm-hmm. wala déet waaw xam nga ko toppoon ñi xam ne euh, euh, lu wér rek ak lu leer la ñu bëgg mm-hmm. kii ñu wax jox bés yow demoo ñu keneen jox bés ba mu jóge sax ñi newoon ci ginnaaw ñoo ne ci kat loolu muy feeñal. waaw dégg nañu Sénat di artu justement ne respecté wuñu. bés yi nga xam ne moom la ñu tànnoon pour ku ne war caa déposer. kon loolu lu muy feeñal. Mm. mooy mbër yi si boog seen bopp ñoo ñoo. ñoo am ak doyadi. <laughs> ñoo am ak doyadi mm. am nga ñu ci seen bopp même boo tuggee loi. Mm. autoroute nga ne autoroute bi nit ñi fii la ñuy jaar fii sens interdit la di nga gis ñoo xam ne sens interdit bi la ñuy jël mais lu yéeme ci réew mi loolu bu mu amee ñu ne contrôle kon loolu amatul xëccoo yow da indi sa parrainage ñu ñu téye li xam ne moom la loi bi wax parce que li ma lay wax yépp mm. loi bi daf ko tënk benn par benn. Mm. mbirum parrainage bi kañ lañ koy contrôler mbirum list yi kañ lañ koy contrôler mm. jamono ji may wax ak yow mbirum parrainage la ñuy contrôler après la ñuy jublu ci liste yi mais gis nga li fi xew barke dem ay nit jóg ne ñoom dañ leen complot ndax liste bi nangam et cetera lu yéeme li ma doon wax rek mooy dellusi jikko ñun ñi bu dul jikko luy baaxal luy defar ngir réew mi hmm. ngir réew mi ngir askan wi waaye sa bëgg bopp te loolu opposition bi wane na ko lu leer liñ doon xas yépp nguur gi liñ doon xas yépp ñeneen ñi dëkkaleen fu ñu dëkkul tey feeñ na seen biir am na sax ci ñoom kenn benn kilifa bu ko mës a wax hmm. ne man li ma gis ci fii suñu biir moo moo gën a salte moo gën a bon la tax ñuy xeex Macky Sall la tax hmm. wax ko ñëpp dégg ko ñëpp bind ko fu mu ne lool loolu dootul dañ. Hmm. te fii loolu ba mu koy wax ah léegi loolu ci élection locale yi lañ jëmoon. mais jii ci élection législative lañ jëm gën na fee feeñ rek. Hmm. kon damay faral di wax ñun ñu ne nit euh, buy jàngat ngir ci biiru nit àdduna. bu mu jàpp rek ne moom moo baax. ñeneen ñoo bon. cest à boobu ne ñi baax ñoo fete fii ñoo nekk opposition ñii bon ñoo nekk au pouvoir. Mm. or ñi ne woon ñi nekk au pouvoir ñu ngi opposition te ñoom ñi nekk opposition demee ñoo ñëw pouvoir. Mm-hmm. te mm-hmm. bon bon dëkkul fen bon bon mm-hmm. dëkkul fen fépp la am. dëkkul benn béréb rek sax fa. am na lu baax ci opposition am na lu fa bon. luy fay musiba. niki noonu ci ci ñi nekk pouvoir même chose. Mhm. li ngay jàngat mooy dafa am yoon yoo xam ne ñu teg moo ñuy may ñu mën a dund ci jàmm. Mhm. ànd di dund. Mhm. le commun vouloir du commun. waaw jërëjëf am na solo waaw. loolu laa ci bëggoon wax. jërëjëf El Hadji Momar Samb secretaire général RTA-S amoon nañu mbégte mm. lool dalal la ci démb ak tey waxtaanee mm. mbiram élection ni mu daan doxee démb ak tey ni muy mm. doxee coow li ko topp yépp mënees naa jàpp ni daal ay jéego am na doonte coow moom moom ak élection yaakaar naa ni ñooy xel di ànd rek. Euh, mm-hmm. mënuñu leen a tàqale. Euh, mm-hmm. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm man tamit di la di la ndokkeel encore di gërëm sa auditeurs yi. yemul rek ci ci ci ci élection. Mhm. adduna moo demee moo demee noonu. Euh, moom moo ànd coow. Mhm. ak jàmbat. Mhm. waaye nit ñi bu ñu dellu see seen xel rek xool démb li amoon. xool tey li am. war ñu am ngëm ne. ëllëg day gën a baax rek. ndax changement am na. te te yàlla may nañu suñu màndargam réew. loo xam ne ñëpp moom lañu ñu war a sàmm moo war ne war a nekk seen itte bi njëkk. mooy jàmmal réew mi. wax jàmm dox jàmm mhm. jëf jàmm te lépp looy wut xoolal rek li fi am yëpp ba ñëw ci Sénat mhm. xeex ci reyante amu ci sànni xeer li ci am mooy toog waxtaan mhm. moo tax man li may wax mooy réew dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo te anam yëpp nag du ci wàllu politique anam yëpp loo gis àdduna moo demee noonu man eh, gis-gis boobu daal mooy bi toj sama xol ak sama xel bi xam ne moom laa yaakaar ne moo war a toj xolu ñëpp ak xelu ñëpp dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo par parloo moom baaxul mhm. musiba la cim réew mhm. waaw jërëjëf Samb mënees naa dégluwaat waxtaan wi ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube démb ak tey la woon ci réew mi FM mm. gërëm jaaw jàllo mi ne woon ci jàppandal gi euh, Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu amoon bégte dalal euh, El Hadji Momar Samb secretaire général RTAS dig leen daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen jërëjëf Samb ñu yendoog jàmm jërëjëf Thiam